jërë ngeen jëf mbokk internet yi nga xamante ni jamono ji yenn safa di seetaan suñu site bi di Sénégal 7 amee ci mbégte contentement sa su nekk di ànd ak yéen ci suñu programme comme ni ngeen ko xamee lépp luy fës ki actualité nee naa leen Sénégal 7 dina ci ànd ak yéen ba ngeen daal di am lu ci leer naññi jamono ji ku nekk xam na ni riiral coowal Fa dara mu ngi lëmbe suñu gaal ci wàllum 20 millions yi nga xamante ni nee nañ moom lay jaayee compte TikTok am alors affaire bi def polémique nag sur la toile ñu jël koo xamante ni élément la ci TikTok bi forum di nga ko fa gis muy flash moo ñii daal di ñëw nag wax ak moom euh, déjà ci parcours am bu ñu paree ci loolu ñu wax ci ndogu yi nga xamante ni doon nañ ko def fële ci université. Cheikh Anta Diop te gars yi troxal leen foofu dàq leen dàq bu ñaaw naam jëf ba dafa rafet ndax dañu doon ñëw di partager li nga xamante ni moom la ñu amoon ak foofu ak yeneen yi nga xamante ni moo gën a fës ci wàllum TikTok ci noonee ñu dalal ko ci biir Sénégal set Flash moo mon ami mon frère maa ngi lay ziar di la nuyu. Vivi ziar maa ngi lay fay. ba yaa ngi ci jàmm maa ngi sant yàlla bu baax. ah ñu bala nga nuyoog mbokk Sénégal 7. Ah, nuyu waa Sénégal 7. Mm-hmm. nuyu mbokku internet yi nga xam ne tey euh, ñoom ñoo ñuy seetaan. Mm-hmm. Euh, di nuyu euh, équipe technique bi yëpp. Mm-hmm. ak ñi nga xam ne tamit super ah. Flash moo ku ko xam xam que tu vois off. parce que ci lañ la man déjà bu ma lay xam ci laa la xamee. mais après ma di la gis ci TikTok bi et ngay def nga nekk créateur de continu Euh, déjà lan ma la dugal ci affaire voix off ba tax nga def après transition dem ci TikTok. d'accord euh, bon voix off li ma ci dugal nag euh, lenn la mooy Marie Ndiago. Marie Ndiago Marie Ndiago laa la gis muy imité ay voix. Mm-hmm. donc déjà mu doon voix imité ay voix Macky Sall Abdoulaye Wade ak yeneen affaire yi demee noonu. super donc affaire bi neexoon ma trop. ma mm-hmm. que affaire de cinéma ak lépp nga xam ne ça li nga xam daal nit da koy déggoo da gis daf ma daf neex. Mm-hmm. donc après du coup si la toog ma ne pourquoi pas comme moom mu ngi def lii. waaw ah. jéem euh, ay nit quoi. waaw ah. si la essayé voix Ahmed Aïdara. Mm-hmm. et ça a marché. Mm-hmm. ma essayé voix Boubacar Diallo mu méngóog sama voix. Mm-hmm. donc voilà ma jël def ko sama touche personnelle. Mm. donc au fur du temps may dem nag après gars yi naa ma yaa ngi yàq xaalis pourquoi pas nga exploiter affaire beeg yooyu noonu ma leen la ko ok. benn jour laa def benn vidéo bu ndaw rek. parce que rek benn gel ne ma non c'est pas vrai lii c'est pas ta voix. kan la kan ban vidéo nga defoon benn vidéo laa toggal euh, si benn studio. Mhm. naan oh là là journée marche ci lii journée complètement marche ci loolu teel a yaram yëpp daw. bismillah li ci kay day ah. genre loolu rek laa def lu ndaw. benn affaire bu ndaw waaw waaw waaw. gars yi ne ma non c'est pas vrai. eh non <laughs> Ahmed Aïdara la de. kii kii Ahmed Aïdara même même Ahmed Aïdara. bismillah ah li ci kay day ah coow li nga xam ne mooy la bu dëkk bi de tur bi kay yaa fukk na jar. c'est grave même di jëm. Bonjour mesdames et messieurs, bonsoir. Ministère de la Santé et de l'Action sociale, ñëwati na son patronage. ah waaw donc gis <laughs> dégg après noonu laa commencé après benn gel ne ma c'est pas vrai. Mm. si laa épinglé li nga xam ne moom mooy commentaire bi. super ma tontu ko après am affaire bi am ay revenus ay mm. abonnés ma ne mm. ah donc pourquoi pas ma continuer affaire bi donc au début c'était pas quelque chose boo xam ne c'était intéressant en fait. Mm-hmm. mais yaa ngi sa bopp ci voix off yi. waaw macha ngi ci bopp. parce que du ay voix Ahmed Aïdara wala voix bu ma may jox kii mais sama propre voix. donc du coup da nga leen di jox li nga xam ne moom lañ bëgg. moo tax nga leen di nax moo tax maa <laughs> ñu attaqué directement li nga xamante ni mooy actualité bi. comme euh, j'ai dit yow dootuñu la présenté parce que déjà xam nañ la ba pare. dëgg la euh, waaye ñu gis euh, ci fan yii ci ginnaaw. Mhm. da ngeen dem université Cheikh Anta Diop ngeen tàmm di ko def <laughs> ngeen di joxe ay dons. très franchement ren nag dons yi ngeen di jox diggu leen. Mhm. parce que da dem ñu toroxal leen. Mhm. yuuxu leen. génn leen ndiir leen. <laughs> yuuxu yu metti sax waaw sénégalais yi wax dëgg na yàlla. dëgg la ñaaw lu gest boobu noonu waaye xamuñ lu nekk ci ginnaaw yooyu bi nga xamante ni demoon nga mën nga ñu expliquer lan moo lan moo xewoon. ci biir université ba tax gaa yi doon leen yuuxu. bon déjà ndogu bi euh, ay tiktokers ñoo ko organisé Mhm. donc je pense que bii moo nekk ko deuxième édition. Mhm. donc day TikTok parce que defoon nañ ko daaw ren ñu koy defaat pourquoi mhm. quoi. parce que mënoon nañ ko defee feneen. waaw mais on a préféré dem fi nga xam ne mooy université Cheikh Anta Diop fi ëpp nit daal pour ngeen gën a am buzz daal. exactement lépp def daal buzz da ci loxo. non pas buzz mais xam nga c'est quelque chose bu nga xam ne tey euh, monument la si ñun quoi donc pourquoi pas ñu dem defee ko ñun foofu moo nekkoon suñu cible. Mm. donc bañ demee déjà. Euh, fi ñu ko defee daaw defeewuñu ko foofu ren. ok beneen pavillon lan moo tax. bon je sais pas parce que man xaw ma li la bon parce que. d' accord du woon man maa doon gérer affaire de organisation bi quoi. d' accord mais comme ñun on on fait partie de des influenceurs. Mm-hmm. donc gars yi mënuñoo woote te ñu ñu bañ a mën a dem. d' accord waaw donc bañ demee gis nañ fi pavillon bu njëkk a dem. Mm. gars yi defar seen affaire yi. lekk mm-hmm. yooyu noonu mais joxewuñu foofu ndogu bi. d' accord ñu dem si pavillon H fa lañ joxee ndog bu distribuer ndog yi ba pare. nga mhm. fooree. Mhm. après delluwaat si pavillon bi nga xam ni moom lañ fa lañ defaree affaire yi. d' accord mais yi nga xam ne dañoo dugg chambre étudiants yi. déjà lu ñu doon def ci chambre yi parce que euh, étudiants yi chambre yu góor yi wala yu jigéen ñi ah, di yuuxu café eh, diw rek maa neex diw kaay photo diw kaay lii mm. tout yaa dégg d'accord léegi après ba demee gars yi commencé lan moo tax ngeen defaree fii seen ndogu dem commencé di ay coow. waaw mais y avait des tiktokers yoo xam ne ñu doon foog yeneen étudiants yi di sànnante ñi sotti ay ndox. waaw ñu di ko fooree. waaw yaa ngi dégg am benn étudiante boo xam ne dafa sànni benn sous-vêtement bëgguma tuddi tur bi. sous-vêtement mooy yére yére bi ah, jiitalu ko sous-vêtement maanaam jigéen li muy sol si suuf avant tubéy bi. Ah, maanaam slip daal ah d'accord ah waaw. Ah, waaw koy slip ko tiktokers yi jël. da koy foowee quoi da koy nga ni ma si la gars yi énervé woon nga attaqué ah kon coow li ca slip ba si slip ba bu bu bu mu sànnee affaire bi ci la ko jëlee. di ko fowee ak yooyu. waaw ah, xam ah, ah, mais est ce que loolu tu que c' est normal. non c' est pas normal c' est pas du tout nice parce que tey déjà yéen seen image ñu ci bëri rafetlu nañ seen image. te jàpp nañ ne li ngeen dem foofu c' est juste pour le buzz ngeen dem nag gën a yokk coow ci yéen est ce que loolu nice na. waaw xam nga affaire dafa am lu ci rax. Mhm. parce que y' avait pas que les tiktokers là-bas y' avait les tiktokers les influenceurs. ak ay xam ne ay danseurs lañu. d' accord tiktokers yi la influenceurs yi ak danseurs yi. d' accord loolu loolu loolu loolu waaw loolu. yéen ñu téye Sénégal daal mooy mooy yéen ñeent yi téye Sénégal. E-, exactement donc fii doo gisoo fa benn influenceur bi nga xam ne tey. c' est un porteur de voix mu osé di jël ay affaires yoo xam da ngay wane parce que c' pas bon pour son image. donc influenceur bi deful loolu tiktoker ba moo ko def. tiktoker yi ñoo ko def. d' accord te ñu parce que c'est pas du tout naa parce que tey képp ku koy seetaan mm-hmm. wala képp koo xam ne bëgg na flash moom ngir li muy def mm-hmm. suba bu ko xoolee dina jàng ci moom mais pas que am na ay site internet yi nga xam ne génn nañ. Mm-hmm. di accuser yenn influenceurs yi. wala di wax parce que mooy loolu parce que tey mënuñoo génne seen bopp sax si tiktokeur yi xam nga moo tax. parce que bien vrai qu'on influence mais sur tiktok lañ nekk. c'est ça waaw donc on est tous des tiktokers. donc lan mooy différence entre tiktoker beeg influenceur bi. bon différence bi mooy tiktoker moom euh, dafay reproduire li nga xam ne mooy sonu jàmbur. moom day xaar son génn mu tiktokon. d'accord un influenceur c'est quelqu'un qui influence des gens mooy maanaam déjà maanaam nit mm. nit ñi nga xam ne mooy produit bi. Mm. yaa donc je suis porte de voix tey bu demoon ba TikTok arrêté sax. yow da dem man damay dem. d'accord par rapport ak ki nga xam ne tiktokeuse la. tey à statut mhm. c'est fini. te à tout moment tiktok mën na supprimer wu. gis nañ fi ay applications exactement t'as tout compris. d'accord amoon na ay loolu dem na. Mhm. sax amoon na fi. exactement mu ngi amoon na mu ngi noonu nag. d'accord <laughs> franchement ñu des ba tey ak yow. Mhm. Euh, ñu dem ci beneen point bi nga xamante ni tamit. temps yi moo ngi lëmbee euh, li nga xamante ni mooy TikTok bi balaa may ñëw ci fay naaraan ak yeneen ak yeneen. imaan ak njaayloo Iman ak Ndiaye mais balaa may ñëw ci ñoom ñaar. seen diggante damay ñëw ci Iman moom en personne parce que boo xoolee fan yi ñu ngi ko fii jiin. Euh, green. waa ñu ngi ko fii jiin lesbienne. Euh, naam moom démentir na nee na du loolu. mais ginnaaw vidéo bu génn ak sénégalais d'habitude lu ñuy gis rek loolu la ñuy yaakaar moom mu ngi expliqué ko kooku xaritam la et mais sénégalais ba tey li nekk seen xel mooy loolu la yow mi nga xamante ni jege nga ko euh, tout le temps dañ leen di gis ci ay vidéo est-ce que mën nga ñu confirmer comme quoi que ni loolu la nekk di dund wala loolu dañ ko ci sosal lan nga ñuy wax ci loolu bon tout sama gain la xaw ma ko ci lu ñàkk fayda d'accord te nekk na nit koo xam ni ci lépp lu muy dugg balaa mu kaa def rek daf may woo téléphone ba sànq rek ba muy génn daf maa wone ma flash moo léeg léeg léeg léeg léeg yaa ngi dégg uh-huh. donc euh, loolu ñu koy wax loolu man gëwuma ko man parce que li may gëm mooy maanaam lu ma gis li ma teg bët uh-huh. yaa ngi dégg mais lu ma tegul bët uh-huh. mënu ma kaa jugé

yow bu nga gisee vidéo bi lan nga ci lan nga ci jàngat yow. bon man ba ñu waxee loolu man. seetaan nga vidéo bi seetaan naa vidéo mais. yow loo ci je n'étais d' d' accord parce que je me dis que peut être benn vidéo mu loolu jël def foo mhm. kenn koo xam daf ko yéene lu bon. dëgg la daf ko te man instant yii. ndeysaan Iman Iman man Iman euh, dafa am benn affaire boo xam ne gars yi amuñu ko. muy lan. muy tur. Mhm. mooy maanaam da nga gis nit koo xam ne am na un million d' abonnés. Mhm. taxul kenn xamu ko. dëgg la mais peu d'abonnés bi mu am. Mhm. tarkalla macha allah. moo ngi buzz moo ngi buzz. dëgg la yaa dégg. Mhm. nit dina romb ci mbedd xamuñu kii. Mhm. yaa dégg. donc nañ bàyyi li ñuy def. est-ce que lu muy imposer moo tax gars yi enal ko. mais mais loolu la mais lu muy imposer gars yi gis ko ci benn affaire waaye ña ko toog nit boo bëggee avancer foog nga am fit. dëgg la foog oser. donc Imane elle a a osé parler. yaa ngi dégg donc moom macha allah man man moom rien à sur Imane Imane moom. RAS donc daal xamee woo ko loolu daal loolu mu wax donc moom ga nga àndal ci loolu d' accord diggante moom ak Ndiaye Lo <laughs> bon déjà waa jooju damay gis ay vidéo am déjà concert bi neex mais waa ji man dafa xaw a quoi moom ay gestes xaw jigéen déet waay kan moo féministe Ndiaye Lo Ndiaye dafa xaw a jigéen waaw waaw Ndiaye man laa su wax jooju rëy na de Ndiaye Lo barke Cheikh Ibrahima Niass Ndiaye Lo genre dina reetaan loolu ni ay vidéo am na trop waaw mais dafa xaw jigéen dafa jigéene ci yow jigéene ay gestam ay manière am ay waxam ay góor di dagg ay ay xam nga góor yàlla da ngay doon góor dëgg xam nga. bu ñu gisee mais peut-être style la rek comme Iman nu mu defee. style nekk style góor góor yaa ngi dégg. dafa am dëkk bi loo xam ne dañ ko fay wàcc. yaa yàlla daf ko maanaam bu dul ay waxu yàlla wala dara sax góor da ngay ndiru góor quoi mais maanaam ay loolu jigéen ko moom. mais nag bu dee dama tey damaa dara teg cheveux nga teg cheveux. Mm. wala ma am la nga war sa. ñu mën a ràññee mënuñoo ràññee mënuñoo nekk quoi et quand tu es demandé il faut donner un bon exemple. xam nan ngay waxee nan ngay solo ak ñan ngay jëflanteel. ak ñan ak nan ngay mel. kon daal sa xel dafa tey moom ci Ndiaye Lo. bon moom fa tëj je me suis même pas su ma yemee ci vidéo bi dinaa si rang. Hmm. waaw mais entre yéen nga xam ne yéen a bokk milieu bi est-ce que xalaatoo jël sa téléphone woo ko ne ko frère su ma sañoon ngay jëfee nii di doxee nii. xamuma ko sax. te bëggoo def les premiers pas. def naa benn vidéo doolu wax ak moom ci jéem a sax mooy jour moom kii ay imam sax. di wax noonu doolu jéem a kaay rek yooyu noonu sax et tout mais ba dëgg fa na yàlla moom jaay loo. Mm-hmm. mais est-ce que vidéo bu est-ce que def ci Imane gënul influencer sénégalais yi à que ñu dem xooli Imane ba ba ba di commencer tamit ci Imane. waaw xam nga loolu moo dul yoon xam nga tey man boo ma neexoon def ci Ndiaye Lo ci lu ko neex. Mm. te xaw ma Ndiaye Lo ba bañ a baakaarlu. Mm. moo tax defuma ko. dama ciy mandu ndeysaan yaa ngi dégg mhm. mais pourtant geste muy def ma neexul pourtant mais moom la am personne mhm. mais maanaam je me dis tey yow waroo toog di yàq nit ki mhm. pour man yow jigéen nga dama la war a suturaal doo tey di ëllëg parce que on sait jamais dans la vie donc du du man maay toog di juger kenn ci àdduna bi d'accord donc c'est pas Ndiaye Lo di juger Imane kon daal yàkkante yàkkante bi ci réseaux sociaux tu n'es pas d'accord. non je suis pas d'accord franchement. d'accord parce que biir quoi dañuy xeex ci benn eh, xaw ma jaay loo xolam peut-être nit ku baax bu rafet la am. Mm, il est sans façon fréquenté woo ko fréquenté ko mënuma la wax jaay loo en ne me plaît pas. d'accord dafa jigéen ne daal ci yow. loolu moo la sof ci moom d'accord c'est important. alors ñu laal ki nga xamante ni nag mooy ndeyu mbi liggéey jamono jii diggante démb ak ki démb mhm. yaakaar naa diggante démb la ak tey euh, dafa dafa dugal benn vidéo fay naara mhm. déjà balaa ñu ñëw ci vidéo bi euh, parce que temps yi la ci ginnaaw dañoo for ci ye weeyu mbéy mhm. weeyu mbéy la mbéy <laughs> que yow ak Faa Aydara da ngeen doon génn bi ngay génn ak Faa Aydara en même temps nga doon génn ak fay naara ci lu ñu dégg wax moom moom moo am yow yaay ndey mbuy liggéey yaa toog moom laa loolu laay laaj mhm. dégg naa da nga doon génn nag fay naar da nga doon génn nag faa ay dana en premier temps mhm. fay naaraa ñëw nga tamit nga doon commencé doon génn ak moom en même temps ñoom ñaar ñëpp yëgandoo ko <laughs> dégg naa sax loolu tax na seen diggante ñoom ñaar ñagas <laughs> est-ce que loolu mën nga ci ñëw balaa ñuy ñëw ci problème fa fay naaraa ci affaire vingt millions yi <laughs> est-ce que réellement da nga doon boole fay naaraa ak faa ay dana en même temps non fifi loolu moom question boobu ñu zappé ko quoi bëgguma cee wax franchement. ñu zappé pour. <laughs> loolu moom franchement lu sensible la ci man mënuma cee wax waaw ah, question boobu. maanaam da ngay confirmer li gars yi di wax li sénégalais yi di wax que da danga doon génn ak ñoom ñaar. bon jàppale ne mais mënuma cee wax franchement loolu wax ci leneen. Flash ah. <laughs> Flash. yi ñoo ne da nga doon génn ak Faynara ak Faidara en même temps loolu laa laaj. moo tax cee wax di jotee bi moom mënu ko teew. instant bii nii temps bi nii mënoo wax ci loolu. amul problème dinañ la ko nangul y' a pas euh, man lu ma ci jàngat daal mooy sa tekk bi ça veut dire que ni loolu dëgg la <laughs> waaw parce que d' boo dee tekk rek loolu dëgg lay doon daal. waaw mun na nekk. <laughs> ma cee wax. amul problème euh, Faynara. Mhm. vidéo bu mu def ne day jaay. premier compte bi nga xamante ni léegi mu jegee 3 millions mais gam naa ni du fa yegg parce que ginnaaw def na annonce ne day jaay compte bi sénégalais yu bëri des abonnés la ñuy gën a def ko abonné euh, teg ci compte bu mu créé pour yu TikTok di ko mën a fay foofu aussi également euh, si je me pas mu ngi ci 600 et quelques mille abonnés te bu mu ko créé yàggul depuis temps coupe du monde bi la. alors ñu gis ne mu def vidéo ne day jaay compte bi à 20 millions parce que moom xam na lu tax. bu koy jaayee vingt millions parce que mën na ko jaay ñiy def immobilier <laughs> wala bu jaay ko ñuy jaay oto non gé xoolal bàyyanteeg moom nag taxul ngay ree bàyyanteeg moom taxul ngay ree <laughs> waaw léegi mu ne mën na jaayee compte bi vingt millions ci ñi nga xamante ni ñooy def immobilier wala ñuy jaay oto mu mel ni fay naaraa gën na leen tamit yéen yi nga xamante ni yéen a fi des parce que yéen seen compte mënoo leen ko jaayee vingt millions hmm. donc euh, déjà annonce boobu bu mu ko defee nan nga ko jàngatee déjà 20 millions yi mu war a jaayee compte am boobu. xam nga déjà TikTok du vie. TikTok du vie. du vie du vie. d'accord du vie maanaam tey bien vrai que mbedd la boo xam ne tey ñu bëri ñoo ngi siy génn. dox daje dox daje la. d'accord am na ñoo xam ne peut-être dañuy TikTok pour TikTok. Mm-hmm. mais gagné wuñu. Mm-hmm. mais ñun ñi xam ne tey ay créateurs de contenu lañ. ñoo ci def li nga xam ne tey par exemple samay voix off dama ciy contacté pour ma ciy liggéey. d'accord mais lii lay def. mënu ma wax nii ngay def mooy. mënu ma lii lay def. man fay naa je sais pas si c'est un tiktokeuse mais influenceuse bien vrai nag am na tur macha allah. ay dégg mm-hmm. Mm-hmm. mais mënu mën a leen lii lay def bi ci topp mooy dafa am ñoo xam dañuy gént abonné wuñu orange abonné wuñu Tigo osé rêve dañuy xëy suba rek di gént pour ñoom seen rêve day war a nekk réalité mm-hmm. mooy loolu lan mooy jël vingt millions naan da fay ci ay compte en simple implication mais fay naa laa mën na ko ko jaral. mën na mën na bañ a mën na bañ a jënd pour pour pour pour compte bi mais fay naa laa mën na ko ko jaral. tey fii yow mii nga xam ne da ngay société waaw gars ñoo ngi lay topp ci bëgg li ngay def. waaw dëgg la. yow boo xëy su bu ko jaay flash moom. Mhm. te li may def neexu gars dañuy désabonné wu. tout nga nekk di jaay. tout à fait. parce que nit ñoo xool li nga bëgg jël yow maanaam tey. am na loo xam ne rafetul nga xay def. Mhm. loolu peut-être nga jël chaîne YouTube nga jaay ko après lu ko nekk mais TikTok même ba ci YouTube sax laa la wax. nit koo xam ne yow yow mii la ci tàmb di bëgg. tey bu stressé yow bu demee ba këram. jaaxle xool benn vidéo kontaan ci yow. nga ne yow da jël abonné yooyu nit yooyu nga xam ne ñu abonné nga jël jaay te xaalis boo paree yow rek yaa koy toog lekk nit ñooñu doo ci lekk parce que xamoo kan ak kan ku nekk yoroo sa numéro xamoo fu mu te ñoom ñooy yàq sa connexion ñoom di lay suivre tout temps. léegi nag dem na ba affaire bi neex. xam na ne que carrément instant ñu ngi ciy coow mu génn dugg snap naan non xam nga lii rek am na ñu bëri xamuñu na ñoom snap dafa testé galaajam moom baaxul galaaj bi baaxul galaaj bi baaxul mais yow kon yow kon kon yow da fay naaraani. xeebu ma ko nit la kon xeebu ma kenn. mais 20 millions yi lu tax lu tax mënu ko jaayee 20 yaa ngi jënd lu ëpp loolu. xam nga la problème la ci ay affaire elle pensait que par exemple tey peut-être c'est une influenceuse elle bu waxee am na ñoo xam ne peut-être dañoo xam nga tey man par exemple kii di jaay wax 500 kii di jaay wax 250 dama naan kuy jaay 500 laay jënd ci parce que maanaam folie de grandeur la. dama naan carrément baalu mu jëndee fii ah peut-être jaruma ko sax mais sénégalais moo bëgg loolu. donc comme moom tamit. mais gis nañ fi jaba sora kaay ñu waxtaan. gis nañ fi jaba lan ma xii. léegi raay nag ko tëkkaleeg bu lamb jaba sora ngay tëkkaleeg fay na la. waaw mais dafa nag mu wax la <laughs> mais gis nañ fi jaba sora di jaay plateau képp 1 million. lan moo tax kon kii nii moom warul mun a jaay kontam 20 millions. fay na la bu doon jaay yëre sax baax na amul da ngay tëkkaleeg loo xam ne bokkul ak li nga xam ne ay non mais. <laughs> plate képp un million laa wax de ay immobilier mais ki yëpp na immobilier yi. wax léegi yéen lan moo leen métti ci vingt millions yi mu ko bëgg a jaayee lan moo leen ci métti yéen. non parce que dafa parce que li li mu bëgg moo mënul nekk te déjà yëpp sénégalais yi weesuwul mu toog ci écran écran am di wax di jéem a utiliser xelu nit ñi moom déjà il a deux comptes nee na gars yi j'ai créé un nouveau compte et que carrément compte bi compte extérieur la. que les gens wu ci foofu jarul mënoo jël parce xam xam xam nga xam nga final dañuy jéem a dugg ci xelu sénégalais yi dugg ci xelu sénégalais yi xam nga mooy lan. Mm. dafa supprimer vidéo yëpp nee na. tout à fait elle n'a pas supprimé da kaa def privé. privé parce que bu ko supprimer woon like yi day dëñ. tout à fait nombre de like yi. Mm-hmm. yaa ngi dégg. Mm-hmm. et que son compte Instagram. est mm-hmm. toujours tout euh, euh, toujours lié avec sa page. donc bu doon dëgg la da koy dindi yàgg na. joxe ko noonu donc am na loo xam ni foo ci xelu sénégalais quoi. ah maanaam dañuy nax. day naxaate na yem day dem na ba affaire bi ëpp na ko doole xam lu wax mu ne non est-ce que du ma def benn vidéo est-ce que je vais pas prendre le compte comme gars yi di jaay ay yére ak lii ak lii. mais moom weddi na mais vidéo boobu mu weddi. weddi na nee na da doon testé rek. gàllaaj la doon testé. <laughs> xanaa kum kaa nekk ñaan mais yéen lu tax bëggoo leen fay naara lan la lan la mooy problème bi. lu muy làkk français la moo tax wala. mais gënul dégg kenn français man tey ma làkkoo français nga ne ma parisien leen ko. non du bëgguñu ko gis nga nit ku nekk. boo ñëwee daam nooy mel. Mm. da ngay wàcce sa bopp. nit la soxoroo moo ko lu mu doon wala parce que gis naa nag benn vidéo sax euh, di wax après gars yi naan da nga soxor parce que daa ëpp abonné wala c'est c'est-à-dire rek du question de ëpp lara. Mm-hmm. Mm-hmm. mais tey nit euh, tey moo xëy bu ñëpp xamee ma ci fifi. waaw suba ma bàyyi la dem si si si si si mati. suba ma dem ci keneen à la fin xam ban genre nit nga. d'accord. yaa ngi mm-hmm. boo xoolee moom bëggul wàcc bës bi. moom day circuler moom ku ñëw rek day jéem a ànd ak yow. Uh-huh. yaa dégg ku ñëw day jéem a ànd ak yow wax naa ko fi benn jour ma ne. Uh-huh. Youssou Ndour woy na lépp. Uh-huh. yaa ngi dégg. Wally Seck woy na ñëpp. Sidy Diop woy na woy ñëpp. mais Fa Fa Aïdara ku ñëw mu ànd ak moom moom ku ñëw mu tax ci rek <laughs> moom bës lay bëgg. kon mooy laalo. waaw koy laalo moom fu ñëw mu tax ci. <laughs> mais yéen ñëpp nag loolu ngeen def de. ah da ngeen ko singulier rek waaye yéen ñëpp loolu ngeen di on a nos propres concepts man jamono ji sama page boo fa duggee tu me vois avec tous les influenceurs. Mmh. tout à parce que maanaam. Ah. waaw à part samay voix off yi may def. Mhm. damay def benn rôle seytaane boo xam ne damay jëw nit ki à fin de la vidéo. tu vois la personne derrière moi tout à fait pour te montrer que man awma problème ak kenn. Mhm. tey ku ma contacté dama flash mon sexe cest à damay déplacé ñëw wuy mhm. parce que am na mu solo. yaa mais des fois da nga leen woo nous dans nous sax mu naan non est doo woo sama doo woo sama manager. waaw léegi dama dama seetlu benn phénomène yenn influenceurs yëpp am manager yéen tiktokers yëpp am manager euh, euh, euh, lu waral loolu. bon <coughs> man déjà damay ménager ay artistes ah, mhm. mais tey tey man. dégg naa Iman léegi dafa am manager. waaw Iman am na manager. Ah? que tamit dafa def lu garaaw lu doy waar. waaw. Iman tey daf maa bett. Iman mu la bettee. <laughs> moom moo woo téléphone doon moo émission 2 waaw ñu wax ne ñuy wax ba pare ma koy waat lu ma ko waaw mu ne ma xaar ma passe sama manager. moo def loolu ci saa si. waaw moom passe mu joomal ma loolu parce que pour man tey ñun nous dans nous bu ñu soxlawee biir war nañu mën a jokkoo sans ay affaire de manager. kon Iman li muy wax noonu kafu ci de. non Iman dafa am manager waaw jamono ji boo bëggee sekk ak moom wala bëgg a gis. waaw da ngay jaar ci mélange alhamdulilah bi de te imaam doxatul moom kese dafa am ñu muy àndal. nga ne ma. ñaari personnes yoo xam ne ñu ngi dox gauche ak droite côté moom imaam moom imaam. mais nekk mais mais mais est-ce que xam ngeen imaam dina dof dof lu ba ba raw. ah mais imaam saa yi c'est c'est c'est la plus grande influenceuse. nga ne ma. du moroom Faynara. te fay naa ëpp ko abonné mais romb na ko moom. moo ne moo ne la leeraayu na kenn du ko tëkkaleeg bu lamb. dëgg la. billaay yow. zone <laughs> jërëjëf ñoo ngi signalé lu des ci waxtu bi bariwul. Euh, ñu dem ci dernier point bi rek. lan moo tax ba tey ngeen daw ci TikTok te TikTok fayu leen. waa loolu gel yi ngeen ci am la. walla wala walla tur bi nga romb ñu ne la ay eh, flash moo. wala wala bëgg yenn affaires yu yomb la lan lan moo tax. bon man nag déjà dama yàgg ci milieu. waaw ah. parce que pour dara man damay liggéey ci photographe. tout fait. mooy tax ma la. yow sa parce que man. dama ah. may don. Ah. muy lan voix. Mhm. avec ma voix mun naa def lu ma neex. Mhm. je peux imiter avec ku ma neex mu xool ma mun naa imiter. tout fait. yaa ngi donc du ay TikTok moom moo ma dugal ci milieu bi. Mhm. te avant je faisais la danse du break super feccal naa ku nekk. Mhm. yaa dégg. moo tax kañ nga waane yow it. yaa ngi dégg donc du eh. xamante naa nit ku lekk tout à bu nekk foto naa ko. Mhm. j'ai travaillé avec beaucoup de studios. Mhm. donc yàgg naa ci milieu bi.